Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 9 août 2024 suñ fa jógee dañuy dem fête yi ki nga xamante moy premier ministre ginnaw bu mu def les déclarations xamal ni que dal li di état du Sénégal su lu jëm ci walu financier dafa nek en ruine manam dafa fekku ñu fi ñaari salaamaaleykum ki di Abdou Latif Koulibaly nekkoon fi ministre ci régime Macky Sall dafa dal di démentir ki nga xamante moy premier ministre bi en tant que maire de Sokone ancien ministre du Sénégal sous suufu régime Macky Sall xam ne Macky Sall bu muy dem bàyyi nañ fi lu tollu ci 850 milliards ci keesu état du Sénégal ginnaw biñu ñu bloqué 2 130 milliards seulement lu waral tey benn blocage jëmale ko dal ci ben rôle bo xamante ay journalistes ñom ñoo wara éclairer li di lanterne bi jëmale ko ci Sénégal ki di Abdou Latif Coulibaly dafa jël contre-pied kii di premier ministre bi ginnaw bu ko xam dal limu wax dara amu ci ndaxte ku la bàyyil huit cent cinquante milliards jël deux cent trente milliards dal li koy donc tay journalistes yi ñoom ñoo wara jël seen rôle leeral askan bi que li ko xamante premier ministre bi nga koy wax amul ndaxte état bi bàyyi nañ fi xaliss donc état bi nekul ben yoon en ruine